sama doom yónnee ma ma xam ne hôpital américain bu Paris moo ma gën a jege ma dem fa def bilan général je ne l'ai pas fait pour moi-même ni pour mes épouses mais je l'ai fait pour ma fille ak ay xaritam ma def bilan général j'ai payé presque 3000 euros hôpital américain ñëpp xam ne dafa euh, dafa cher ma def lépp ba mu génn ma capturer ko envoyé ko sama doom pour la rassurer ma jàpp ne mbir mi warta yam sama doom war nga ko fësal ba war naa ko fësal parce que am naa ay xarit ak ay soppe loolu moo waral sama plainte ma yónnee ko su may ñetti avocat muy maître Moustapha Dieng maître Weber ak maître antambay Mbaye mu su sumay résultat analyse envoyé leen ko jox leen mandat pour ñu defal ma plainte au niveau de la cybercriminalité may féliciter encore une fois commissaire Kandé ak ñi mu àndal. il est romb na ko macha allah. il est brillant yàlla na ko yàlla lafal cat. dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat. mooy demander état bi nañ leen gestu nañu gestu. si jox leen ay moyens dimbale leen jox leen ay moyens. loolu maa ngi interpréter. moom jàmbaar jàmbaar il fait du bon de la république. parce que wax dëgg yàlla seen njabarte romb na foofu bi ñu remonté. man j'ai fait une contre X te yàlla laay waxal bi ma defee plainte contre X ñu am ñu ñu jàpp kenn si ñoom jege ma trop doon suma xarit ma yéene ko lépp ba samedi si guddi yàlla rek laay jël seede sama buntu permanence la ñu toog ak sumay xarit parce que man saa bu mu ñëwee Thiès samay copains d'enfance yi ñooy nekk ba ay deux heures du matin di naan ataay di waxtaan. tous les week-ends nag vendredi ba dimanche ton bi ñu lekk mburoog ton bi ñu lekk femme bee ma ko jox et ça m'a fait très mal mais man j'ai été affecté parce que dafa sori dafa sori trop si man et ça m'a fait très te yéenewu ma ko lu dul jàmm sama rongoñ mënul parce que samay samay doom moo tax. sama fa non non non j'ai mal que daf ma jege. non bul jooy. daf ma jege te yéenewu ma ko. bul jëf ju bon boo jooyee dafay jooyee non non j'ai xam nga lu tax may mën a. bul man dama jàpp ne politique. bu ñu demee ba bàyyi jàmbur ñu koy tuumaal ne ko da nga sida. c'est dégueulasse. romb na ko ñoom jaral na leen loolu. et ñun jamono ñuy politique dëgg loolu amu fi woon kàddu yu nekk yëkkati woon nañ ko fa mais pas yi may mën et ça m'a fait mal mais tere laa koy wax askanu senegal ñu may seetaan damay jullit parce que yàlla wërsëgal na ma dimbale na ma ñett yoon laay dem màkk di ziyaar ji yonent bi sallallahu alayhi mais yàlla setal na la c'est le plus important. Euh, euh, li tax setal bi rafet màkk la ma fekk ñu jàpp leen barke alxuraan dama toog j'ai pleuré parce que dafa am sama benn xarit boo xam ne chaque année bu woon. Euh, ndom bu dul woon lu muy liggéey damay tudd turam ci tale bi ñooy nekk ñooy bokk nekk ñooy ànd suma xarit la dama toog jàkkaarlook rawdu yonent bi sallallahu alayhi ñaan yàlla dellu ci kaaba gi ñaan ngir sama doom parce qu'elle a été perturbée j'ai même pleuré barki alxuraan matul ñaari fan màkk googu laa toog ñu ne ma jàpp nañ leen waaye man nit la ñuy jàpp ma ñaanal ko intervention nit la ñuy jàpp ma fayal ko avocat nit mooy am soxla mu dimbale ko te yàlla tax te kenn du koy yëg àdduna ak may seetaan jéggal naa leen bal naa leen si xol bu seen c'est le plus important barki alxuraan euh, na la eh, j'ai demandé à mes xam naa ñu ngi seetaan maître Moustapha Dieng donc yow da nga ne nañ leen baal da nga ak maître maître Anta Mbaye baal naa leen si xol bu seen guy parce que man jàmm laa yéene ñëpp moom laay dox di ko wax saa su ne lañ ma tuumaloon moo waraloon ma def sama plainte mais un acteur politique ou bien quelqu'un qui incarne l'État sa wareef mooy ngay dimbale sa wareef mooy ngay taxawu jaam sa wareef mooy ngay suturaal doomu adama la ma si jubluwoon mooy suma doom parce qu'elle a été atteinte loolu rek la woon mais du lenn mais jéggal naa leen si xool bu sedd guy et j'ai demandé à mes ñu retirer ji sama plante bu dee man la incha allah na leen bàyyi ñoom ku si nekk ñu ñibbi. waaye nag du man rek lañu ñu tooñ am na ñeneen ñu ñu tooñ ba briser seen i ménage ménage toppkaar tas na ay kër tas na ay diggante lañ ma bindaloon metti na ma may mën a te yàlla rek laay jël seede sama ça m'a fait trop affecté. billahi wal kitaabi dafa metti non non dafa metti surtout loo xam ne du dëgg dafa ma metti may mën a ça me fait très mal nag waaye jéggale na barke alxuraan c'est le plus important. et puis euh, voilà sa doom euh, tu as pris le soin euh, nga rassurer sa sa sa sa njaboot du faiblesse booy justifié wu euh, mais c'est que tuuma dafa metti te Sénégal buñ la tuumaalee nit ñi. am na ñoo xam ne ils vont préférer croire ce qui a été dit te bañ xool li nga xam ne moom mooy dëgg bi alors Massaly ñu ñu ñu terminer et vous tenez vraiment à ah montrer ces analyses ah non ah xam nga xam nga mbir exclusivité bi laa lay que yow bokkoo si ñoo xamante ne da leen invité par leen dagg wala jàllale li ngay def loo neex. vraiment. je ñoom dañu ma dimbale waale sax parce que xool naa sama graisse xool sama foie bi xool lépp. mais mais mais mais Massaly <laughs> que dara dalu ma. xam nga man man je suis un homme qui rien comme réseau yi lañ ko defoon affaire bi wër àdduna ngërngal képp. primeur bi laa lay jox ak exclusivité parce que mérité nga ko nit ku baax nga te yàlla na la yàlla lafal cat yàlla euh, musal la si pexe noonu yàlla jàppale la amiin te bul bul bul teggi sa lignée mooy di informer juste et vrai par parloo lépp laa lay jox nga foofu def nga un ah, bilan ko ñu may dama leen di wax ne ñoom seen waajur sax médical si ndimbalu yàlla seen waajur ñoom maa leen gën a wér. def nga un bilan médical complet on va pas entrer. Euh, dans les détails liñ lay doon liñ la doon tuumaal tamit. seen analyse la ñoom seen waajur sax maa leen gën a wér. Oui, euh, voilà, dans ces analyses-là, il est, il est, il est, on, note l'absence de beaucoup de maladies, de beaucoup de, de, de beaucoup de, de, beaucoup toutes sortes De, MSC. Ah. Mais, mais, mais, le plus important, en fait, le, le, le, le non, parce que, parce que, parce que je tiens ma def ko. Non, man. Gis nga politique, bu mu jaral nit di wax li amul. Non, bëgg naa la permettre. nga vraiment et man damay attester j'ai lu mais xam nga ay données médical c'est un peu sensible et ça me gêne beaucoup. waaye yow euh, loolu yow la intéressé. Ah. sama alal la maa ko moom yoonu nit new si. du mbirum Jean du mbirum Jacques du mbirum Paul du mbirum Antoine. la ma subir ba génneel la ko man maa ko xam. da nga bëgg ma liir ko. liiral lépp tout. foie beek kër yeeg sida beeg yëpp xool ko mu ngi noonu. teel ab naa affaire askan bi ah? teel yaa am excuse mu ngi noonu lépp noonu. lépp négatif la mu ngi noonu négatif défaite yëpp a ngi noonu. donc euh, maa leen gën a wër ñu ñoom ñoom après bu ñu paree. baal naa leen. mais ñoom aussi balaa ñuy génn ci hôpital bi fo ci ci prison bi ñoom ñëpp aussi foog ñu defal leen contrôle ñu xool dafa metti je vais faire entorse à la reine je vais lire ça juste pour que mu leer ci bopp nit ñi et mu leer ci sa boppu doom ak ay xaritam que. liñ ñoom tuumaal liñ la tuumaal alors amul alors sérodiagnostic du HIV euh, interprétation HIV. négatif voilà j'en j'en j'en eh, mun nañu ko mun nañu ko xool dañ ko zoomé hôpital américain bu Paris la sama numéro dossier gi voilà et c'est le plus important ah, puisque vous y tenez mais mais mais j'avoue que ça me gêne un peu oh, waaye yow ba mu gêné ma gêné sama alal maa ko moom kay loolu ah. yoonu Jean-Jacques Paul bu ah. Antoine new si ko moom kay sama alal loolu kay yoonu kenn new donc c'est une page refermée